nga tam rek waa cool gars Mondial Production arène nationale bu dox ci diggante Moustique combat bi doftal ci yeneen combat waaye ñu ngi ci diggante Doudou Yaye Katy Yaay door na sànniwaat na ko daw nañ jël ko ma ngay door takk nañ ci ay gerte jongale na ko ah! doomu juboo booy waali ñu ngi leewaatoo wala ñu ngi leemu ku ne di def sa débat. fekkew ma jamonoy sama papa duuba lees waaye xale yi kenn dàqu leen a bëre dóor na ko ay percute dóor na ma ngay dóor ñu ngay xeex ndeysaan sama papa faga deux faga un sama papa Fallaye Balde ñooñu fekkew ma seeni génération waaye xam naa ne xale yi nii ñuy bëree macha allah mu ne bëre mbot na ko daanu wut droit appui loxo baa nga ca kaw dóor na ko ña ngay xeex ci suuf ndax ñu ngi jàppante mu ngi dóor ay uppercut ci suuf xoolal fa mu teg loxo ba mbotante nañ ci suuf mbaa sit du am ja nañ mu ngi koy mbaa sit am xëcc na ko rëpp nañ teg na aas daan na waaw waaw daan na dëkk nee na fii moo ko moom ndeysaan Baye Waly ñu ngi lay nuyu ma tax daan ñëwal nii nga daan ba pare avant lépp ko daan ma bal muy mbott ma joral ko mu dóor dënn bi dama mën a bëri na samay borom ñëw ñu bëri musuma am defet ci làmb combat quatre victoire te ay champion laa daan ñi ma daan ñëpp ay 6 combats 7 combats Samba Laobé njëkk daan doomu jubóo bi Samba ñoo la maa ko maa ko na. Laysa Boy Dieye mu ngi dox ci koom mbokk yi Laysa moo leen wan ginnaaw. bi attewaat na avertissement 4 avertissement 5 disqualifié. ñoom ñaari mbëri ah, waaw waaw ak mbër ba lam ña xeex ñoom ñaar arbitre bi àtte la ak ay fan ay fan ngeen jàkkaar lool ndeysaan mbër baat woon ginnaaw ñoom ñaar ku ci nekk tànk ndi joor nga jiital ñu ngi xoolante ci bët joxañaan na jël na tànk ba mbërbaat iphone jàppante nañ ña ngay xeex ña ngay xeex dóoraat na ko dóoraat na waaw waaw ma ngay dóor mbërbaat iphone eh, ñaari xale yi ñu ngi xeex xeex bu neex ñoom ñaar bëgg naa fayu moom iphone waaye mbërbaat fi mu ko dóoroon rek la ko tegaat jël na tànk ba dana ko daan daanu ko mbot na ko daan na ko daan na ko mbarbaat daan na ko mbarbaat daan na iphone duma na ko daan na ko ndeysaan sëñ ba merci merci merci lan moo waral xeex bu yàgg non sama kosu moom moo ma lool loolu mu mënoon naa ñëw bëre baa si man mënoon naa ñëw jàpp ko daan waaye sama kosu moone ne balaa nay bëre balaa na koy daan ba xeexal ak moom ba pare noo ko noo dama bàyyi dama bàyyi mu denk si si wet bi ma dóor ko mbot. waaw loxo bi laa ko doon dóor damay xool en chaque fois bu déplacé woo teg tànk nga teg sa tànk ndi joor bu déplacé nga dóor ko pied lan moo tax la waral dóor boobu saa yu joxañee nga dóor ko donc ko bëggoon yóbbu ardo ba mu sonn nga daan ko wala lu waral. non du question loolu làmb ji moo laajoon loolu rek làmb ji moo laajoon loolu ma def loolu. saa Thiès ak xañ loo arbitre bee ngi wax ak ñoom sëñ Bas arbitre bee ngi leen di wax li bi nangu ak li mu bañ. sifflet moo leen di boole waaye sifflet moo leen di tàqale arbitre bi laaj na ay jugeem na Sa Thiès Khaylo Khaylo Sa Thiès Khaylo Sa Thiès Khaylo na daw na jàppante ak Sa Thiès ndengeñante nañ plaqué bañ na mu ngi door ay uppercut mu ngi door ay uppercut mu ngi door ay uppercut door na ko tànk mu bañ xañ la Sa Thiès ñu ngi dóorante jàppante nañ ci nekk am na lu mu bëgg a togg waaye sa morom day bañ Sa Thiès Sa oh! Sa Thiès dafa mel ni daanu na moo tante action bi waaye suma juumut daa mel ni Sa daanu na wala njaax arbitre bi muy def dalee woo waaw waaw daanu na moo tante action bi waaye xale bi da koo wër. entraîné ah. barke Seydina damaa liggéey liggéey liggéey liggéey ba bëgg a dee feebar ci combat bi jaar yoon. mais action bi mu la def tenté na ko première fois mu. waa gis nga ñun dañoo nekk ci école de lutte dañoo nekk école de lutte ñu ànd seeg suñu père Bada barki Serigne Fallou Mbacké dañuy entraîné ba ñuy jooy lu ne la ñuy yegg lu ne la ñuy wax lu ne la ñuy dégg barki alxuraan mais dañuy muñ. père dañuy liggéey barki Serigne Bamba bëri dañ koo tarbiyu. bi mooy sa ñaata combat. mooy mbokk yi dimanche 15 décembre 2019 arène nationale Mouniang production combat spécial Ndiak ne kii fa mu nekk parcelle mbooloo fala fanaane ak Moussa Dioum ñu ngay xeex sànnante nañ Ndiak ak ki nga xamante mooy Boy Sène Ndiak jël na ko plaqué na ko mu bañ wër na ko ndomba lu koy def jàppante nañ ñu ngay xeex ñoom ñaar woo na ko ci digg géew bi Ndiak Diop Boy Sène jël na tànk ya Ndiak Diop jël na ko Ndiak Diop jël na ko fu ñu jëm Ndiak Diop daan na ko Ndiak Diop daan na ko Ndiak Diop daan ngi lay nuyu. ñaari doomu ndey ñoo toog fii. waaw ñëwoon rek métro ak Angleterre. waaw ñëwaloon suñu doomu nday Tafa Ndiaye doomu parcelle la ñëwoon pour soutenir ko quoi jàppale ko ñaanal ko mu am ndam si kaw Moustique. mais booy ba léegi Angleterre gisuñu la xamuñu ci loo nekk ci lan nga nekk. non nekk suñu entraînement rek nekk suñu entraînement ñoo ngi ñu proposé ay combat mais peut-être yàlla dafa dogalul sama diggante suñu diggante ak yooyu muy taxaw mais ñoo ngi suñu entraînement ñoo ngi liggéey matin waaw état bi nga yor ba léegi kenn gisu yi ñu lay contacter. non ñoo may contacter barki Demba rek proposé nañ may combat proposé nañ ma presque ay trois mbër mais benn taxawoo ko si bu si confirmé rek di ngeen di ngeen si kanam tuuti rek di ngeen di ngeen gis fan Angleterre ban équipe. ñoo ngi dóor dóoraat pour toujours toujours dóor dóoraat chaque jour amuñu leneen lu dul dóor dóoraat ñoo ngi daal di waaj di waaj di waaj ñu jël la fu mu toll nii caax. métro. métro foo nekk. waaw ñu ngi fii nii rek ñu ngi fii nii waaw ñu ngi ñu ngi fii di yëngu daal bañ suñu entraînement ba léegi quoi. ñoom da ngaa leer de daa mel ni da nga am xaalis temps yi. ah non aw ma xaalis de <laughs> aw ma xaalis de mais maa ngi sant yàlla baax maa ngi sant yàlla quoi. amagoo combat. non amaguma combat. promoteurs yi ñu ngi lay contacter. non non gëj naa gëj naa dégg non non. lan moo waral loolu. waaw làmb moom boo gisee xam ne làmb léegi dafa xaw a taxaw quoi wa mais gars yi ñu ngi mais ñu ngi entraîné ba léegi quoi. sa dernière sortie yaa ngi noo ci defoon. non moom moo ma daan quoi. jaa ci nga am arène. man am naa cinq combats euh, quatre victoire benn défaite benn match nul non benn benn nul waaw. kon yow fi mu nii kan nga bëgg ci làmb. ah kan nga bëgg. non man ku ñëw baax na fi maa toll damaa lal sama basang rek ku ñëw baax na. Jabar waaw oh, bu ñëw baax na gabaar Gris 2 gabaar baax na <laughs> ah booy gabaar gabaar waaw maag gabaar day neex sax waaw gabaar baax Armando waa pës bëgg naa la góoru tima maa ngi lay nuyu waaw maa ngi lay fay maa ngi lay fay lamb ji dañ laa gis tay nga ñëw seetaan si lam waa gis nga namoon lamb rek namoon lamb rek bëgg a dund lamb sama champion yi rek waa ñëw doxantu xool lamb ndax mooy suñ cosaan jaajëf maa ngi nuyu namu naa leen ko baax da ngaa rek di galayaabe galayaabe sama rakk ma doon bëri tey ba rek Serigne Baba Mbacké moo tax gis nga dafa daal ma dafa fekk ko ci biir géew bi waaw mais nag Baye dafa jot ci bëri Baye Fall dama war a bëri waat combat Mama Lamine ak Jokkel nga mujjee bëri dimanche bi ci laa mujjee bëri daal Modou Yacine gàkku doo laa bëgg mu ngi ne wax naa ko léegi gàkku doo barke Seera Fall gàkku doo moo gën a métti mëri ndaw yi moo tax ma bëgg ko gàkku doo mu ngi ne gàkku doo men barke Seera Fall maa ko bëgg man maa ko bëgg combat boobu ñaata combat nga def arène dix combat laa def deux défaites sama premier combat arène laa daana woon ñëw spécial man a xeeru ngor fii Euh, deux mille deux mille xam nga lan seize xam nga dix-sept xam nga yaakamti affaire xale rek jàpp ma ma def kat appui mais boobu ba léegi yaa ma gën a xam mooy lool keroog gis nañ xeex damay waaw dégg naa mbari dañuy moytu sa pied gauche <laughs> ak loxo gauche. ak a neex ak a neex. énergie. Moustique ñoo ngi lay nuyu. kay eh, ñoo lay fayoo. noo waajalee sa combat yaak Boy Sine. non waajal bi waajal bi waajalee yéen rek. ànd ak suñu père Jim ak Boy Thiam ak père Maré ak Aliou Seras yor nañu ci entraînement bu baax combat bi nag du yomb ndax combat bi sama bakkan laa si teg victoire mbaa bakkan bu des. lu tax loolu lu tax loolu damaa toog deux ans bëriwuma samay morom di ma daaw année balance loolu kese moo ma téye moo ma tax may bëri kii sax. bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sama neuvième combat neuvième victoire incha allah rabi fii fii lay doon. kon bi sa neuvième combat. neuf victoire deux défaites laa am neuf victoire am deux défaites. ku ma bañ islam waruma mun a bañ. yaa Boy Sine tey ku ci nekk xam na ni Boy Sine daa bëgg xeex te yow da ngaa bëgg xeex est-ce que séntu nañ ci làmb ji xeex. Boy Sine du xeex kii tey su xeexee mu dóor daal lu garaaw laa lay wax tey victoire bi caare la ñëw incha allah rabbi waaw feete ko foofu nag moom neex. waaw di gërëm nag suñu coach yi père Maré père Jim père Aliou Seras waaw ñoo koy sant leen gërëm ak bëri ma àndal yëpp nag maa ngi di ñu ngi waa Thiaré nañ ma xaar maa ngi ñëw victoire bi léegi. maa ngi leen di fay. ku ne xam na sa diggante ak Papa ay Aïda tey nga jëlawaat ko njukkal nan nga mel moom. li ma mel moom mooy diggante mbokk diggante kóllëre diggante xarit suñu wayjur yi àndoon moom mu téye ma ak fukki loxoom yàgg na boobu ba léegi nanguwul bàyyi loolu di ma wax la sa yëpp laa doon wax rek ne la booy jàpp jàppal koo xam ne waxi waxi daaw ak jëfi renam dëppoo na loolu moom lañ ko téye loolu moom mu nekk suñu rak nekk suñu woykat nekk suñu lépp. dañuy gis journée boo am ndeysaan da ciy def yéeneem ñëw way nga xam ni kii li muy def diggante moom moo Modou Niang diggante bu dëggu la lan moo fondement loolu ci diggante diggante bu dëggu la parce que diggante bu sincère la diggante la boo xam ne ngor ak kóllëre moo ko moo ko moo ko laltaay te ngor ak kóllëre lu mu laltaay rek. loolu day yàgg day jëm kanam te incha allah fa ma jëm moom fu sori la incha allah. yàlla na leen fi yàlla bàyyi lool ngeen yàgg fi lool te ànd ak. amiin amiin jërëjëf papa. sa moom sëñ Modou nañ ma ko bàyyel waaw maa ko bëggal sama bopp yàlla séddee ma ko mënu ma koo fay ndax daf maa yëg man yorali milliard soo ma yëgul yëguma la barki Serigne Saliou ndax man xaalis jaaxaluma sama maam moo ni ma woon su nit ñi di wuti million demal nga wuti nit ñi. soo amee nit ñi am nga lu raw ay millions barki Serigne Touba dellu tegal ma ni ma Papa Ndiaye mu ne ma mu ne ma fen di terloo bés lay xaar cey bu bés ba yegsee di nga am yaraanga waaw sëñ Modou samam sëñ moodoo may sant ñi ma àndal ñëpp rawatina sama soxna si di ma jàppale ci biir ak biti ma gis ci samay kóllëre yu bari ñoom Modou Ngiraan ñoom Serigne Lawbe waaye Amar Mbeng sama goro ak baay Mbeng mënu ma leen a fay waaw mënu ma leen a fay di gërëm sama xarit yoo xam ne kenn la ci man maa ngi moom altine ak talaata la ay seex lan sax muy maam seex maam seex seen bu kër Masaar séeri maam sa seen mënu koo fay dama koy sant di ko gërëm di ko ñaanal di gërëm Modou Ndiaye man daal maa ngi gërëm ñi ma gunge ñëpp ñi ma àndal ñëpp di ñaanal ñëpp wér gudd fan waaye nag di ñaanal sunu papa Duub sek ndax bés bi man moom laa ko jagleel hommage am di ko ñaanal fi mu jógee fa mu jëm gënal ko ko fuuf yàlla xaare ko ci àjjana yi gën a kawe yi gën a kawe yi gën a kawe yi gën a kawe yàlla na ko yàlla teeru teral ko soppeem ba Seydina Mohamed yàlla na ko teeru mu teral ko demal yi gën a kawe waaw Ousmane yow xam nga démb sama xol daa tooy maa ngi ñaanal ñi fi nekk ñëpp vraiment samay kóllëre rek a fi nekk samay xarit sixième édition du benn du benn édition waaye saa yu ko sëñ Modou tëgee rek nit ñi ñëw ànd ak man saa dama koy cofal sax ni yëf yi tey ren dama koy tuutal waaye saa yu ma xalaatee dama koy tuutal rek day gën a rëy waaw sëñ Modou moom sama sëñ. Serigne ñoo ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay ji li Kébé. ban affinité nga am ak ki nga xamante ne mooy Papa Ndiaye ay dëmb. Euh, dañ ne dëkkandoo jàmm a jëgal lii lépp dëkkandoo moo ko waral parce que yàgg naa kaa gis si si làmb yi muy woy maa moom xamante wu noonu mais dañoo ñëw takkaloo ay moom xam naa ne tey bis bi du xaalis moo doon mu tuddee ma ko waaw na yëg dara mënu kaa fay nit tudde na ma lu ne dérangé wu ma ko mais tey xam naa ne mënu ma ñàkk bañ ñëw loolu moo waral mais Papa Ndiaye. ku baax la nit nit ku baax a ngi waaw bu ko nee bu ko neexoon mu ne jënd yàpp rek laa seq ak yow de nga ñëw jaay ma wala sama jabar ñëw nga jaay nga jaay ko mu dem mais nag dafa def lu rafet jël lépp waaw ni tuddee naa ko Serigne Lawbe kii jaay yàpp ci terminus fu ma tourné ñu may woo téléphone ne ma dañ laa tudda lam dañ laa tudda lam ma ne ah waaw kooku daf maa yëg rek moo tax mënu ma ñàkk bañ a voilà. sëñ Bass kii su ma ko timalee micro mu wax ndaysaan da xam ne àdduna lu yàgg dëgg la ndaysaan. parce que yow parce que yow mun naa wax ku ne ba mu des yow parce que fekkee nga. waaw donc maa mag mais mag bi demewul noonu mais dib bi ñuy xaale ba tey kon xam nga géej naa la gi yàgg naa la géej naa lu yàgg ay ati at kon tey boo ma gisee nga ne ma sëriñ Lo waaw.

ngeen jëf mbokk yi seetaan ci wasaare lamb grand combat noonu journée Mouniang production drapeau Papa Ndiaye Aïda Mboup mu dox ci diggante Moustique bu école de lutte Jëmboori ak Boy Sine bu Rock énergie arbitre bi sifflé na Boy Sine wan ginnaaw ngemboo ngemb lu weex li jiital tànk càmmoñ Moustique moo wan kanam mbokk yi moom ngeen jàkkaar lool noonu mu sànni benn morso bu xonq léegi ma ngay leetoo ñoom ñaar booy siin moustique moustique ñoom ñaar ku ci nekk garde normal la booy siin moo xaw a tuuti waaye moustique moo ëpp taxawaay ña ngay leetoo booy siin sànni na léegi boy siin ak moustique Moustique dafa mel ni fi mu toll nii waaj na pour dem Boy siin Moustique Boy Sine mu ngi def ay déplacement am joxañaat na léegi sànniwaat na léegi benn pied gauche moom Boy Sine Moustique di ko déglu Boy Sine sànniwaat na Boy Sine Moustique Boy Sine Moustique Moustique sànni na dalul ay cokkaas la ñuy def ñoom ñaar booy Sine tibb na suuf Boy Sine Moustique Boy Sine daw na Moustique jël na tànk ba ña xeex Moustique jël na tànk Boy Sine Boy Sine bañ na Moustique Boy Sine Boy Sine añ na ko Moustique bañ na Boy Sine Moustique ña ngay xeex gàllaaj ya dagg na Boy Sine dóoraat na ña xeex Boy Sine Moustique war na ko ndomba daan na ko Moustique daan na Boy Sine Moustique daan na Boy Sine Moustique door daan na Boy Sine hey daan na Boy Sine Moustique daan na Boy Sine Moustique daan na Boy Sine bu doon. Moustique KO Boy Sine dox. Moustique Moustique Moustique Moustique da nga ne ma bu xeexee dama koy dóor mu daanu ngeen xeex yéen ñaar nga daw. jàpp ko noo bëree kii nee naa su weesoo xeex kii mu nu bëre. billaahi wallaahi wa taalaahi daa lu tax ma bëre kii mais kii du ma ak moom. billah wala taala loolu laa di ñaan. noo ko daane. dama kaa song mu yaakaar dama koy kii ma war ko wet si jaar si wet gi fel ko mu daal waay. moustique. <laughs> Ah. jërëjëf kontaan naa. mystique bilaay walaay kontaan naa trop trop merci jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan naa trop. loolu nga def. loolu la def de. loolu nga jëfee. yàlla gisee bopp léegi xool da nga war a dem plateau. drapeau bi drapeau Papa Ndiaye Aida la. woykat bu nekk ci lamb yi ñëpp xam nga ko xam nga ko. xam na la Papa Ndiaye li nga ci drapeau bi ñaanal ko ko mu gaaw rejoindre dem plateau ba. dégg fa Balla gay 2 fekk bëgg fa Bombardier yàlla nañ ko fa dégg. ci darajay Seydina Mohamed waaw ndax sama drapeau moom ku ko jël rek incha allah dinañ la dégg sori ci kàttanu yàlla ndax ki ma tuddee drapo bi moo ma koy yéene. parce que saa yu ma tëggee première journée rek deuxième journée bi xel yëpp dem ci Papa Ndiaye Demba ba muy six édition bon sama digganteek moom fàttewul démb bañ daan andi Casamance ngeen gi neew di paan ci àll yi déedéet fàttewu ko dafa am loo xamante ni géwal géwal du tëb doom ji kii maamam moom moo moo defaroon ngànnaay ya kajoor ak bawal jotee seen bopp bon noonu la ma ne maamam moo njëkk a jébul ci Serigne Touba Serigne Bamba ko seexal def ko muri jàllaay bon bu ko neexoon mu jaaxaan di laaj àddee comme tout le monde waaye nag <coughs> guerrier la guerrier booy pikin la dafa gëm boppam liggéey la xam dama koy bàyyi yàlla rek. dénk naa ko yàlla yàlla na ko yàlla aaral boppam ci daraja yonent bi waaw waaw. léegi yow it lan nga lan ngay wax promoteur bi. promoteur bi promoteur bi mooy wax si maa man Baye ubbil naa ko samay bunt yëpp. ndax koo xamante ne moo la njëkk a tëggal combat. sama premier maa soq kii ko njëkk a tëgg. stade parcelle bi du ma ko mos a fàtte bëree daan. maa ma ñaareelu moom troisième sama premier combat saison deuxième saison mu jox ma grand combat maag Jali si laa yóbbee onze kaar ngor xam naa fàtte nga ko moo taxit ba kii waxee rek as mu waxee rek billaay wallaay taalaay ay ñoom Tamsir dañ di laajte chaque jour Tamsir Samba Ndiaye man moo dugg si làmb mais di gërëm ay ñoom Père Jimbori Père maa ngi koy gërëm waaw Mara maa ngi koy gërëm Aliou Seras maa ngi koy gërëm di ko sant yow nag ñu lay yàlla yàlla may la fan gudd ak wér-gu-yaram ak ay combat ubbil naa sama maa la xaar incha allah rabbi maa ngi sant Moussa Lamé Cheikh Dieng Cheikh Dieng Moussa Lamé maa koy gërëm di ko sant waaw suñu yitte Papa Ndiaye mi la bu meloon ni mu war a mel wala bu mel neneen ñun du ñu bàyyi suñuy liggéey di ko topp bu guddee mi ngi sans place bu bëccëgee mi ngi sans place mi ngi place su Sëriñ mi ngi place su fépp yëg nit ñi nag nit ñi boo leen yëgee rek ñu yëg la dafa yëg nit ñi lim bëgg yàlla ko sans borom defal ci barke Seydina Mohamed yow nag dañ lay sant bu baax a baax a baax li ngay defal Papa njaay ñun ñëpp nga ko defal yàlla yàlla yokk xéewali yàlla yàggal la ak Papa Ndiaye ci barke Seydina Mohamed Monsieur Kane monsieur Kane. Atouma.